telephone down, my rocket salaam salaamaaleyk Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen tiitaroo di leen bëggee ñoo ngi toog maak sama benn mbokk bay la xanaa sibloo ni may ënd big Paco vainqueur laa ci micro jox naa leen samay loxo di leen tiitaroo di leen ndamoo li ñu fi indi fàtte wuñ ko suñuy mbokkee woote moo tax ñu wuyu leen salaamaaleyk salaamaaleyk Baboy, normalement tu vas gagner, on est venu pour toi quoi, on est fiers de pitié, il faut la lutte quoi, comme ça on sera content, ok Thank you for the night. Ok, c'est moi Albert là. Yes. Man maay Albert Boy, l'homme fort, l'homme de Belgique. Waxtale aywa waa Sénégal yow aywa waa waa TFM sama doom bi sama doom laa nam Abdourahmane dégg nga ah grand noo tudd soo nga waxal ma ko léegi. waaw bisul baax yow noo tudd. Ahmed Ahmed. waaw ah Mohamed baax. dégg nga kam Touba ah. na fii. kon. waaw. kaas ku tafitu waa ñaata. un euro. ñu ñaata six cent cinquante. kaas ku waa lu muy jar Dakar. fukki dërëm. fukki dërëm lay jar Dakar pare. waxal bi ñu lay déggee. yaa ngi may maa ngi la ciy nuyu ak sama soxna dégg ak sama baay. ça va. yaa ngi si naan nii. Café Touba am na France. waaw. Café Touba kaas ñaata la. kaas bi cherul de. Euh. téeméer ak fanweer. téeméer ak fanweer. waaw ah. da ngaa ma ñëw fukki dërëm. waaw fii France la. Ah. bien avion bien cher. <laughs> bien avion yi moo tax quoi. mais nee na. Café naa. ah, ah. Dakar moo tax. bu Dakar moo tax defe nii ma xool defe nii ma xool. bu Dakar moo tax. mu baamu Elbili cepelepo. Kafumu chemli. Ali baboy. Merci. Ala ok cherno ok cherno ala e. Ok cherno. Baboy ni baboy ni ba. Ñu nekk baboy spécial baboy. Tay wax fan la ci naka la. TFM la wax ma koy sibaata rek kan ma sëmbër waaw. Elton. Mhm. Balla Bey. Waaw. ak euh, ak ak keneen d'accord. mais ma ko non koy supporter la laaj. waaw koy supporter. Bombardier lay supporter. attends attends comment ça Pape Morlo. Pape Morlo Pape Morlo Elton. te Elton ndax ma faral ko parce que. Balla Gaye laa faral. day ko la ko xam Elton laa faral. waaw ah. Pape ak Balla Balla Gaye di bëggee waa Jolof waa TFM bëggee bu baax waa Grand Yoff. dégg nga sama mère waa koñ sama waa Gale tout monde bëgg yëpp di leen bëggee jaajëfal de. da ngay supporté. maa ngi supporté euh, Bombardier. Bombardier ah ñu di bëggee waa Mbour yëpp. Bombardier ah, waa Mbour la. mais bon wax dëgg la mais Mbour sama dina la. ah ok mooy mooy am na dëgg saay saay la. <laughs> salut. Eh, eh, eh, ñu man supporte qui. tu supportes quel lutteur. ah attends non laisse la. mais moi je connais pas. ah tu connais même pas. non je connais pas. ah ok ça va. Jamtar. Mbour ñu toral. Galama woni. wallahi Mbour ma daw. alhamdulillah. yow kon ngay sibar xanaa baabooy ngay sibar de. ñu ne ko Haalpulaar mi mi ci porto kay yàlla ñu ne ko mi Haalpulaar bi. Oh, mais attends chaîne nationale. mais baabooy. Ah, ma photo non attends photo film film. ah film TFM. ah bon TFM film. Eh, ah chaîne waaw mais waaw waaw mais Non, non, non, non, Français je comprends pas l'homme, je parle français. Ah, ok, vas-y, allez, parle français, mais parle pas tout ñu salam do Youssou Ndour d'abord. Youssou Ndour mi bu sax bu baax quoi. la. ñu koy gërëm. Voilà, baax na. Doox mu ñëwaat dëgg jouer fii. Waaw waaw, loolu lañu xaar. Loolu lañu xaar. tey bi sama tànk xalaat. Waaw waaw, sama waay la de dama ko. Baana. Allez, dis-moi, tu waaw booy yaa ko jàpp. voilà tey euh, Sénégal. non merci. Baboy. Baboy ah. jënd ko bandu. ah. da ngay dugal daal. mais yow gisoo Bombardier ni mu toll Bombardier ni mu toll. gisoo Bombardier ni mu toll actuellement. ah. alors. Baboy ah. Baboy. waaw da koy koy duma daan ko yëngal gësam.

est-ce que yaa ngi mbër bu ñu tëggee ñoom yaa seen combat day neexal waa kër gi mais na bàyyi xase bu métti bàyyi xase métti te bis bu tasee ko waa Mbour dina bàyyi xase parce que waa Mbour ñu am fula na loolu man man mënu ma ko bañ man mënu ko bañ parce que hmm. ku nekk ak sa xol ku nekk ak sa xol fu mu far quoi est-ce que yaa ngi dégg tey ñu nii 100 pour cent waa Mbour promoteur bu nekk sax da ngay am mbër quoi voilà te ku nekk da ngay loolu man man contre mu ko ah, parce que nit kese la comme yow li ngay pare man ni may pare ni kii di pare ni kii di waaw mais en tout cas ñoom bu ñu signé benn contrat lu wax nañ ko def lu mu wax ak ko def lu mu wax ak na ko def c'est tout. donc guy gi di wax. waaw rek. Bombardier <laughs> dama bëgg mu mu jot. mu jël Balla Gaye 2 combat bu noonu combat bu neex la ma bëgg Aziz Aziz Ndiaye xam loolu combat bu combat bu neex la Bombardier Balla Gaye bu soobee yàlla loolu bés bu amee xam nga fan la koy tëggee da nekk Paris da nekk États-Unis nekk Mbour da nekk Dakar Bombardier dina dóor Balla Gaye dóor gaaw a gaaw dafa may jinne nga xam ne nag ñun dañoo am kankurang. non man Eumeu Sène laa faral. Eumeu Sène mais tey ñii di bëri ñii di bëri ñi non dama ñëw rek parce Sénégal yi fi daje quoi moo xam. Ah. mais pas pour mbër yi fi nekk. pas pour mbër non c'est vrai koo si boor rek. non man bal la. mais bu dee tey moom. papa jiit la ñu wax parce que ci ren. tafatin tafatin ah. <laughs> maa ci tafatin man. non revanche lañ soxla am na seen Balla Gaye. am na seen Balla Gaye. waaw revanche waaw dafa ragal ne dafa ragal ne bu seen Balla Gaye ñëw. kon baax na. yéeg yi nii na wér nag ak kii yëpp bi quoi. <laughs> lu mu wax sax nee na rëy yi dafa am ay neer yeeg neer yeeg mooy saxaw ah. Melbert nag na neer yi décoincé kon quoi. jaay waay. waaw nagam nagam su ma nagam kuul. ban télé la. TFM la. TFM waaw. ah oui. kon li si voté nag. ñun dañoo ñëw rek pour ay comme ay Sénégalais rek. pour Sénégalais quoi waaw. ñoom ñu ngi si voté Baboy quoi. Baboy. di ko ñaanal yàlla may ko ndam ko incha allah. kaw boobu kaw boobu rek. si voté kii. waaw Baboy. Baboy. waaw c'est bon. liberté ak lépp kii laa dëkkal. waaw. mbokku téléspectateurs yi euh, ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu jàmm yëngi di seen magazine Roffo euh, depuis Paris Bercy euh, focce na ñëw nag ci li nga xam ne moom la taarixu làmb di jàpp mooy li nga xam ne tey moom lañ fi def si muy bëre door bi nga xam ne moo ñëw ci Paris pour la première fois Badiane production organisé ko mbokk yi maa ngi leen wax asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu jàmm loolu ñu xéewal dellu sutura ci réew mi ak mu Sénégal gépp maa ngi leen di ñaanal jàmm ak réewum France bi nga xam ne doomi Sénégal yi ñu fekk tey nga xam ne fii la ñuy daane seen doole ah ñi ngi ñaan yàlla dool leen sutura ñi ngi ñaan yàlla dool leen jàmm ñi ngi ñaan yàlla dool leen xéewal faj seen aajo kon yàlla yàlla dool li jàmm ba lii ñu sumb ñu dugg ceeg bi gën ceeg alhamdulilahi rabil alamin ah, mbokk yi comme niñ leen ko doon waxee lamb nag taarix la nga xam ne lu ci bari tey mënees na ko nettali ci wàllu làmb ku ne xam ne histoire u làmb euh, bëre door ah ca Sénégal ak bëre simple ci Sénégal li nga xam ne mooy bëre simple euh, li nga xam ne mooy mooy sunu cosaan di bëre simple yàgg lool maam yi daan ko def ba vers les années vingt jàpp trente ki nga xam ne mooy Maurice Jacquin euh, dem wuti autorisation pour ñu autoriser ko léegi bëre bi di am dóor ci noonu la ko defee waaye na mu ko organiser woon sunu maam yi gis ne war naa gën a rafet Euh, ci la ñu nangu licence bi ci moom ñoom ñu jël ko sunu maam yooyu nag valoriser ko teg ko ci yoon ba organiser si drapeau Afrique occidentale française boobu nga xam ne Abdourahmane Ndiaye Falang ak Babacar Thiaw bokk nañ ci ñi ko jël ak euh, ba ba ba ci booy ñoom ñoom booy séeréer ñoom Doudou Bakk bëri ci ñoom Fallaye Balde bëkk ci bëri ci ba ci ñoom Mbaye Guèye ak ñoom booy Bamara nga xam ne en 69 le drapeau Afrique occidentale française jeex. Boy bambar yor ko ba léegi kon nga xam ne histoire lamb yàgg na ba nga xam ne bi ñu duggee vers les années soixante-dix nag ci ñoom Mbaye Guèye ñoom Boy Bambara ñoom Papa Kane ñoom ñëpp ñoom Doudou Baka Sarr champion yooyu jël lamb indi ko ba tekk ci ñoxo ñoom Ambroise Sarr ñoom Birahim Ndiaye ñoom Mang di ko yor ñoom it di ko indi ba tekk ci ñoom loxo Moustapha Guèye ñoom Ibou Ndafa ñoom Aliou Diouf ñoom euh, euh, Mame Ndiambane ñoom Mor ñoom ñëpp tey di ko indi di ko indi tey ba xale yi tey yor lamb ñu ne ñan ñoom Yaxya Joob Yékini ñu ne ñan Balla Gaye roi de arènes ñu ne ñan xale yu mel ni ñoom Tapha Tine ak tant d'autres ay Modou Lo ay Eumeu Sène xale yooyu yëpp tey ñoom ñu ñëw yor lamb tey kon je pense que ak ñoom Bombardier mi bëre tey fii ak Baboy kon lamb daal histoire la koo xam ne kii ah ñun bu tubaab bi wane li nga xam ne mooy rij bi euh, basket bi États-Unis moom ko euh, sumo bi nga xam ne chinois yee ko moom ak li nga xam ne euh, mooy yeneen xeetu poy ñun ñu jël lii ñu wane tey muy làmb moom ko indi ko fii ci Paris Bercy war ko fay bëre kon mbokk yi tey damay ànd ak yéen rek ci biir salle bi bàyyi leen nag ngeen découvrir li fi am bàyyi leen ak coulisses yi li nga xam ne mooy réaction yi nga am fii ñuy dellu siwaat ci kanam tuuti nag laata ñuy dugg ci combat yi mbokk yi ma bàyyi leen nag ak li nga xam ne moom la leen ni jotoon fii ci Paris Bercy ànd ak Amet Ñaa mi nga xam ne nag moom laa àndal ci caméra bi mbokk yi ñu dugg si biir dellu si waat laata ñuy doo dugg ci combat yi. yi ba léegi euh, gis ngeen li ngeen jot a gis léegi ci salle bi euh, sénégalais yi waaye mbër mi nga xam ne mooy Elton mi ngi euh, Elton tey noo ñëwee France. waaw ça va ah parce que bi ñu ñëwee teertu nañu vraiment wane nañu sénégalais yi ñu ngi fépp muy Bercy la première fois histoire làmb war a ñëw wane suñu bopp pour defar suñu affaire si kanam tuuti incha allah. waaw euh, noo ci Bercy. waaw làmb ji vraiment préparé naa comme ni ñu ko doon dundee Sénégal rek def doon def lépp ñëw def ak sumukaay ànd ak suma gars yi xam nga ñu ma war a bëre defar bu baax incha allah. mais euh, la daan nga daan ko tey revanche fii ci Paris. waaw. fi la ko yàlla tuddee kon ñu ngi sant yàlla rek di ñaan yàlla may ñu ndam lu rëy si kanam incha allah. waa bis bi waa bis bi dama gis nga waaxu sakaan léegi. waaw gis nga. waaw fas yéene yóbbu ndam le Medina Gueule Tapée Kër Massar ak sa mbokk lébu yi rek. ko ak samay mbokk am sama mag alsaan mu taxaw ma si ak sama mbokk yeeg sama frère yeeg ñëpp ba mu mën a bëri. daf la daanoon nga daan ko. tey muy seen troisième combat. waaw ma ñëwaat daanaat ko Bercy muy deux fois. yóbbu ko Medina Gueule Tapée Medina Kër Massar Malika ñibbi. mooy sunu raay nan ngeen gisee lamb ji. waaw lamb ji gana lamb ji neex na fu mu toll bu ma sax mu neex. man maa ngi dëkk Sénégal. maa ngi dëkk Guédiawaye. Guédiawaye man maa ngi dëkk Sénégal Fouta quoi. waaw Agnam. te xoolal xamal lan ñun ñu ngi fii affaire rek la ñuy fu am dañu bàyyi suñu liggéey ak tout ñu ñëw aujourd'hui moo tax ñu ñëw fii di bëggee quoi. waaw naa ne combat bi na neex diggante Balla Gaye euh, Balla Beye ak euh, Bombardier waaw xam naa ne daal euh, spectacle daal xam naa ñi ngi xaar daal ci kanam naa gis kanam raw li bët. maa ngi supporté Baboy. waaw. ne lam ñoom neex na. c'est une très bonne initiative. man ñaataat nga fi def. oh une vingtaine d'années. une vingtaine d'années. waaye. foo dëkk ci Sénégal. je supporte euh, euh, le la waaw Ndoye Bismi Ndoye oui oui moi je supporte je supporte Youssou Ndour qui est qui est mon seul frère Ba je suis waaw jox ma loxo daa daa leen seet si man fi laa nekk waaw jërëjëf nel Youssou sama rakk ju baax la depuis xale bu tuuti laa ko xam ba léegi waaw man naa ngi France ça fait 45 ans. 45 ans. waaw depuis 45 ans mais mu ngi plaisir beaucoup Ngagne sama ku baax la mën a waaw jërëjëf Ngagne Ba. maa ngi waa Sénégal yëpp. man Assane laa tudd. laa dëkk. maa ngi di nuyu ñoom nuyu sama yaay. nuyu sama mbokk yëpp nekk Sénégal. Bombardier sop sop Bombardier. waaw booy la ñu wax. waaw booy Bombardier Bombardier. Bombardier Bombardier. Bombardier la Bombardier Bombardier. Saint-Louis la Saint-Louis laa dëkk maa ngi nuyu Mamour Sy Mamour Sy. man la madame Bali dafa ñëw nag pour daal di supporter sama xale bi Pape Mor Lo waaw rek grand béni rek waaw sama doom la. ci Dakar Grand Médine laa def man Assane Touba laa tudd man maay rakk Jules Ba te jóge fi te épaulé woon Pape Mor Lo pare yi mari rakk Jules Ba la Mariama waaw Adja Mariama waaw Bombardier waaye noo tudd Benga, je, ne comprends pas le Wolof, je suis Halpoula. Euh, on est très content d'être ici. C'est un grand événement pour le Sénégal. J'espère que ça va continuer. Ah, ñaala pulaar min komi haal pulaar anare pulaar eyi mbiɗo welti ñalawma hannde o arani yo mon fils guygi junior Bonsoir, euh, bah, je côté, je peux pas parler Donc euh, je suis allée toute ma famille euh, à Bumba, à Agnam la famille Gako, la famille Tagora. On vous aime. Comment vous ba làmb yegg li may ñaan rek mooy ñu gën a téye làmb ñëpp bokk ndey bokk bàyyi làmb jëm ci kanam. Balla Gaye. waaw sama maa ngi lay nuyu di la fay damay wax ni Ngañ ku gudd fan lu ne di nga gis. lii ku ma ko waxoon du ma gëm waaye nag euh, naa sant yàlla te it xale yi war nañu sàmm bis bu mel nii te it xam naa ni bu yàggee ba yàgg làmb amatul frontière. Balla Gaye yàgg nga ñëw Europe est-ce que mës nga xalaat ne bëre door dina am Europe. yàgg naa ñëw Europe waaye lii mosuma ko gis fii ma dugg tey maa ngi fii a dugg ndax mbër dina fi dugg. Max. waaw Ngañ nii naa la di la sant di la fay mooy li may wax rek. wax naa ko léegi làmb amul tànk ginnaaw tànk kanam rek làmb ñëw naa fi làmb mais mbooloo bu toll nii gisuma ko woon kon moo lay wan ne làmb ji non seulement mi ngi intéressé Sénégal ndax ñoo ko moom mais mi ngi seen mi ngi intéressé àdduna bépp nga njaañ moo lay wan ne war nañ koo gën a taaral rafetal ko ndax it nag image u Sénégal la ñu yenu andi ko fii ci Paris. maa ngi gën a président des ménagers Bassirou Babou euh, président Babou. defe naa ci sa ay la làmb def jéego bi bi nga déggee président la làmb def jéego bi ñëw ba France ci bëre dóor tey lan nga yëg. waaw xanaa kontaan lool rek tey gërëm organisateur bi lim bi organisé lii di gërëm aussi président Alioune Sarr ndax wax ni sama ay la affaire bi ñooy mel ayu Alioune Sarr la nekk naa fi te làmb amul jéego bi kon dañu war a sant Alioune ak équipe bi mu àndal ndax mi ngi dimbali làmb lu bare bare di leen gërëm yéen aussi yéen waa TFM parce leen dara fu làmb dem yéen ga nga ànd ak moom ca baaliya ba biir euh, stade ya ci biir koñ yi fu ne da ngeen fay ànd ak yéen da ngeen kon làmb amel na leen ñukkal amel na leen ndax làmb képp ku koy defar rek Sénégal ngay defar en tout cas daal maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. di gërëma suñu ay Dakar gi nga xam ñoo ma yowal fii tey yéen sant gërëm lépp yokk te am rek ñu gañ lamb rek moo yokk ñu war nag ñu ginnaaw yàlla def nañ ñu yóbbu fii li war rek mooy ñu sàmm ko rafetal ko ba ñu def lenn loo xam ne lu ñuy xeebe ñu mbëri mu ñun menacé yi ñun ñun Sénégal ñu ñëw. Euh, Sourou Fall mais ñi ngeeg sunu correspondant euh, groupe Futur Média Yoro Mangara euh, moom moo représente Euh, Yoro euh, tey bi nga ñëwee Paris lambu dóor fekk le fi muy sa cosaan lan la la def ay yan écho nga am euh, ci dëkk bi commentaire yi naka la demee. gisoo fi rek ay sénégalais am ay tubaab am ay étranger yu bëri yu ñëw nga xam ne làmb moo ma ñoo ko sos nag waaye fu mu nekk nii daa warub réew samay mbokk te ñëw. dama la gis nga sarax fleur. waaw lépp ci tegtali la rek waaw. voilà son excellence euh, monsieur Diatta ambassadeur du Sénégal euh, fii ci France euh, excellence lan ngay wax tey ci Sénégal ñëw tey organiser fi bëre bi nga xam ne mosul am ci Europe Sénégal indi ko fi dajeeg yow nga nekk fi ambassadeur. Eh, tey bés bu mag la ndax ñëpp dañu jaaxle ndax andi suñu culture. exporté ko fii liggéey bu baax la et comme j'ai l'habitude de le dire le meilleur produit d'exportation du Sénégal de des meilleurs de d'exportation du Sénégal c'est notre culture kontaan boo xam ni am na fu mu commencé sax moom fu mu yem li ñu doon nekk doon liggéey yëpp lii lañ bëggoon tey fexe ba bëre dóor ñu mën ko exporté naa la nettali benn anecdote rek première fois bi ñu gisee woon le directeur de la télévision mu doon Babacar Diagne à l'époque y a près de 15 ans de cela pour ñu mën a def benn direct ci benn combat daf ne loolu mënoon am bëre Sénégal kenn mënu ko def direct parce que du ñu respecté charte yi am contrainte journal télévisé temps yii journal télévisé 8 heures commencé mu ne loolu mënul ne ñu nekk di ci liggéey di ci liggéey ba yàlla dafa ñu sutura tey lamb yu mag yëpp ci Sénégal Dakar direct la léegi ñu ñëw ba di ko exporté ko indi Bercy defe jàngat bu rëy la kan moo indi bëre door France kan moo ko indi Europe muy Badiane pour la première fois nga ubbi buntu Europe bi euh, lan nga ci waaw xanaa di si sant yàlla ndax euh, boobu ba léegi ñi ngi ci woon yàgg yàgg na ñi ngi ko doom dox boobu ba léegi ba tey bés bi euh, mel ni donc ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. bi yow moo mu am yàlla def na tey pratiquement gis ngeen bis bi ni mu demee donc loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. donc comme niñ koy waxee rek euh, lii euh, dañ ko def pour am fu ñuy indi làmb te itam ku gis ni affaire yi demee xam nañ am na un boo xamante ne am nañ ko ndax am nañ ci ouverture léegi te ça c'est loo xamante ne yombul woon donc bu ñu ba am fii sant yàlla la. Euh, yaakaar naa ne ñii ay feccikat lañu waa bale baa ngoog kii mooy ban bale. bale bi mooy bale jàmm bu As Ndiaye Sénégal lañ jóge mais ñu ngi Suisse mais dañ ñëw fii pour jouer tey Babacar laa tudd Babacar Sagna Babacar man Ndeye Aram laa tudd ñaari tali laa dëkk waaw waaw ñaari tali daal maa leen di nuyu di lay naa leen torop nuyu naa sama yaay namm naa ko torop maman je t'aime beaucoup je t'adore maa ngi tudd Kouma Mbaye dëkk Patte d'Oie Buldeuse maa ngi maa ngi a sama maman di gën naan maman Tekkeureu Mucca di leen xamal ne nag fii dañ fee ñëw parce dañ fee war a ñëw ndax euh, visa ñu euh, bés joxuñu visa As Ndiaye ñu yor defuñu visa huit mois ñu def tournée un mois ñu ngi Suisse di jouer spectacle Suisse lañ jógee ñëw bi bu ñu paree Italie la ñu jëm jógee Italie delluwaat Espagne def suñu tournée. soo noo gisee fii tey. waa tey sama xol dafa sedd parce tey sama xel yëpp ak si stade Demba Diop ak Iba Mar. xam nga tey per ngeen ñi a rafet jaay suñu culture tey tubaab kenn desul waa France Angleterre Italie kenn desul damay ñaan ñi organiser lii may la ma wax sànq sa buntu ba buñ ko chaque année wala chaque trois mois nañuy di ñëw di gën a indi affaire pour gën a jaay suñu culture franchement kontaan naa di ko waa Gueule Tapée waa Médina waa Kër Massar ñëpp kontaan nañu man Zeng Abdou Badiane maa ngi nuyu waa Liberté 4 ci Paris. sama gars yi Kudulus. Kudulus waay. mais père nuyu la vraiment tey ji kontaan si sa teewaay fii biñ la gisee démb waa di ceeb biñ la gisee ñëpp a kontaan billaahi ñi doon rêvé ñi la doon gis ci bi gis la yow si sa ni nga ëmbalee ak say doon ni nga technique ci li ngay wax ak ni nga performance sa liggéey. donc ñëpp euh, a dem ñoo la rendre hommage bi nga xam ne j' étais un peu ému bi ma gisee loolu yëpp defe naa ni li xew nii euh, lu ñu lu ñu lu ñu foogoon la xëy na tey la yàlla dogal mu dikk parce que lamb aussi ba mu commencé def ay jéego ak léegi yàgg na xamoon ñu yàgg yàgg ci lii lay débouché te ragal naa ni dina dina jéggi dayoo dina dina dina romb lii parce que ñu bëri foogoon nañu ni affaire bi du du neexe nii mais je pense que tey ni mu mel nii dina jox courage ñeneen. pour ñu parfaire organisation bi pour ñu tëgg fii ay yeneen lamb et puis diaspora bi fii euh, au niveau de euh, en France colonie sénégalaise dafa am doole fii xam naa ne lii première fois mais bu ñu ko fi départee xam naa ne dina jéggi dayoo tey boo xoolee ñi ñëw bëri nañu parce que tout simplement am na lu mu leen di fàttali et puis parce que tey boo xoolee tey euh, ni mu ni gradin yi ñi fi nekk saafonte bi bëri na trop moo lay wan ni lii am na njëriñ mais bu loolu weesoo aussi lamb moo def ay jéego ba war a mën a ñu mën ko exporter mais en dehors de ça aussi ñu gis ay ñeneen ñoo xam ne du ñu sénégalais ñu dugg ci lamb xamoon nañu ay malien ay gambien mais bu ñu demee tey ba gis ay espagnol ci biir lamb ji moo lay wan ni lamb ji buñ ko jàppalee am noo xam ne noonu lañ koy doxalee rek war na mën a avancer. li ma yëg mooy euh, mbégte mbégte ak surtout fierté. parce que wax nga ko pour la première fois ñuy organiser combat de lutte avec frappe fii ci dëkk boo xamante ni ñoom ñoo nootoon suñu maam yi ñu ñëw fii tey indi fi suñu culture parce que lamb bu ñu gis rek dóorante kurpeñ yi bu ñu gis rek maanaam deret biy tuuru mais li ñu war a gis mooy surtout li nekk ci biir ci wàllu culture ci wàllu tradition tey ñu indi ko fii ci saalu Bercy sànq ma koy fàttali nii maanaam bu ñuy waxee Bercy ñu xam bersi am na kenn koo xamante ni moom moo tax kooku kooku dañ koy gërëm di ko sant ci liggéey bu rafet boobu ñu def ko ci beneen anam waaye buñ ko boolee ak làmb daanaka benn anam rek la moo di Youssou Ndour ñëpp xam ko mu ñëw fii relever le défi parce que boo xoolee salle bi nu mu réyee nga ñëw feesal ko ba mu fees dell loolu ku koo xamante ni ku mag rek moo ko mën def tey jii Badiane production topp ci tànk yooyu indi fi la lut avec frappe maa ngi doon wax fan yële bu fekkente ni ñoom français yi xam nañu l'appel du 18 juin l'appel du général de pour ñu ñëw libérer France tey jii xam nañu l'appel di 8 juin appel boobu mooy appel des arènes sénégalaises loolu vraiment dañ koy rafetlu fi gis fi ay sénégalais ay africains ay tubaab ñëw di seetaan lii diggante Bombardier ak